waaw organisation bi li ko waral mooy ay jigéen lañu ah ñu gis ne at bu jot tàmbale ci 8 mars ba quinzaine bi jeex dañ ci jigéen ñi dañuy dajaloo di def ay manifestation yoo xam ne dañuy wane ne dañuy sargal seen bopp ñun nag ñu nekk kuréel boo xamante ne dañuy yëngu ci lislaam loolu moo tax ñun ñu bëgg cee bay suñu waar daal di dajaloo oo suñu benn borom xam-xam ngir mu fàttali ñu ci jigéen nga xamante ne mooy waru garam ci jigéen ci société bi ci jigéen ci àdduna si waaye ci jigéen ci taxawaayam ci lislaam ak ci njobootam ak ci mboolem li nga xamante ne moo aju ci dundam ndax gis nañ ni jigéen dañuy sargal seen bopp ci yeneeni anam yu bari yoo xamante ne boo xoolee sax amul benn njëriñ ay temps lay jël waaye ñun ñu gis ne li nga xamante ne moo gën ci jigéen mooy dajaloo fàttali ko li nga xamante ne moom mooy cëram fàttali ko li nga xamante ne mooy waru garam ak taxawaayam ci société bi loolu mu nekk loo xamante ne moo ñu fi dajale tey ngir ku nekk buy ñibbi mu am lu mu yóbbaale boobu ëllëgee mu nekk koo xamante ne dafay taxawal li nga xam ne mooy waru garam ci anam gi mu gën a rafete su ko defee dund gi dafay baax li ñuy jooytu ci mbon bon defiy dañ waaye bu ñu delloo ci borom bi subhanahu wa taala ñu am ngërëmam